ci leneen kàdduk Mbaye Alassane moom nag moodu moodu la ginnaaw bi nga xam ne rek moom it daal dina ñibbi si fii ci diwaanu Thiès euh, jamono ji nag li ñuy dundee jafe-jafe yi ak couvre-feu bi jëm ci wàllu état d'urgence ak mbir mu daanaka sax lu ñu yóbbu wala sax lu ñu jox seen njaboot ngir dundal leen nekk nag jafe-jafe ndax ñëw nañ ci euh, dellu bi daanaka nekk na jafe-jafe si ñoom ñu teewlu kàddoom toujours maa ngi suivre ci tele yi ak ci journal yi euh, président am initiative bu rafet pour jàppale bépp sénégalais bu nekk fii ak bu nekk bitim réew bon programme bi rafet na mais li ma ci xaw jaaxal rek nga xamante ni moom laa déggagul mooy immigré yi nga xamante ni jot nañu ñibbisi sama genre gi te bare nañ fi trop nga xam ni depuis décembre ñu ngi ci suñu biir famille nu toog ba suñu séjour jeex euh, yoratuñu xaalis ñu ngi ci suñu biir njaboot frontières yi tëj nañu ndax euh, feebar bi mënatuñu dellu te amatuñu benn moyen mën a toog ci biir njaboot gi ndax borom kër ci biir këram wax dëgg yàlla buy toog day am lu mu toogaale te fi nu toll woyof na nu toy te mënuñu ko jooy fenn lu dul wax ko ci média yi wax ko autorité yu nu jege maa ngi koy wax monsieur le maire maa ngi koy wax euh, ba Diatara pour que nu gëstunu ndax bare na fi ay père de famille yoo xam ni ay tukki tukkikat lañu ñii ñëw nañ depuis novembre ñii ñëw nañ depuis décembre yàgg fi moment bi sunu vacances jeexee ba nu war a delluwaat sunu liggéey ci la événement bi am frontière yëpp tëj mënatuñu dellu muy coono gu métti gu nu nekkee goo xamante ni mënuñu ko jooy fépp ndax pratiquement immigré euh, ñi koy ñi koy yërëm bariwul ndax yaakaar bi nu am ci moom nit dana ñëw am nit dana ñëw ñàkk waaye kenn du ko xam donc ñu ngi koy dénoncé pour que autorités yi nga xamante ni tey ñoom ñoo fi nekk di doomu cees di saytu askan wi taxaw te mu jël position pour jàppale leen nanu bàyyi xel sama mbokk immigré immigré yooyu. ndax bare na ci ay père de famille man ak samay moroom yoo xam ne ñu ngi toog woor na yàlla xam naa ci ñu bëree baree bëri ñoo xamante ni sonn nañu mënaguñu wàññeeku te seen i poste vide na. Euh, fédération bi ëmb euh, handicapé